anamu dem ak dikk ak moto taxi te ñu leen di woowee Jakarta mi ngi tas ci réew Sénégal ci région yi ni ñu ko amalee dañ ko yoonal waaye dañu ko tere ci capitale bi dakaar ni ko yoon tëralee dawalkatu moto taxi dafa war a am lu ëpp fukki at ak juróom-ñett xam bu baax tey jëfee ni ñu ko waxee code de la route am permis de conduire A1 ak attestation buy wane ne def nga formation ci sécurité te auto école bu ñu agréé moo la ko jox am assurance responsabilité civile ak nit ñi ngay yàpp ci moto taxi bi valable am numéro plaque immatriculation bu gox bi nga nekk ak licence am ñaari casque ginnaaw dawalkat bi kenn nga am yoon yóbbu di sol gilet dëppoo ak li ñu tëral ci gox ba bañ a dawal boo màndee wala nga jël garab buy nelawloo bul dawal bu guddi gi sore te bul dawal di téléphoné seetlu nañ ne moto jakarta ñoo ëpp ci accident yi am wala ñu bokk ci ay criminalité wala trafic ci loolu ngir aar ak xeeb lépp luy jëm ci xeetu ñombe ci tali bi fu ne ak jamono bu ne ñi ngi leen di diggal ñu lëkkaloo ak takk der yi te di boole defkatu yu bon yi même bu dee borom jakarta la bu accident amee ñi ngi digal dawalkatu moto taxi yi ñu def nii taxaw te jàppale ñi gaañu woo takk der yi maanaam sapeur pompier police wala gendarmerie jàpp bu baax numéro vert bu takk der yi ngir yëgal leen ko ni mu gën a gaawee xibaar bii ki leen ko baaxee mooy Partners West Africa Sénégal ci projet kaaraange yoon ñu tuddee ko Sahel Road Safety Initiative ci ndimbalu département d'État américain jaarale ko ci INL ak Partners Global ci jàppale ak doxalinu réew Sénégal ci ay banqaasam